وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي نوي سيطان اك دي دقلو تسين تلفزيون بي دي المختسمين تي في دل سوات ننجل النيو دل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته di leen nuyu di leen ziyaara di leen jégalu bu baax di balu xaq di leen ñaanal yàlla jam ak yërmande xeewal ak sutura ak barke yal na ko yàlla wàccee ci seen kaw di ñaan yàlla suñu boroom lépp lu nga xam ne jot nañ ko woor ci koor gi yal na ko nangu lépp lu ci des may ak buñ ko a wooree te luñ ci woor tam yal nañu ko nangul rëcc rëcc yoo xam ne dal nañu ci koor gi yàlla nañu ko yàlla jéggal tabaarakallahu koor gaa ngi nii di dem buy dem yàlla nañu fi bàyyi bu dee dellu si yàlla nañu fi fekkaat ay déwén yu bari ànd ak wér ànd ak man ànd ak xéewal ànd ak sutura ak barke ci barke yonent bi seen émission bii di njariñu koor dellu si waat na ngir waxtaan ak yéen ci koor gi ak njariñ yi nga xam ne koor gi dina ko def ci ñun rawatina nag ñu nekkoon ci jikko yi nga xam ne lu mata sonnee la lu mata fàggu la lu mata am la lu mata bàyyi xel la ndax ci lañu akmalul mu'minina imanan ahsanuhum qulqan ki gëna mat ngëm yàlla ci yéen mooy ki gëna rafet jikko mu mel na ngi toll woon ak ci wattu suñu ay làmmiñ wattu sa làmmiñ tabaarakallahu ba amoon ci ay jataay ak yéen tey ñu dellu ak yéen ba léegi ci point bu am solo boobu nga xam ne mooy làmmiñ wattu ko fexe ba doo ci wax njombe fexe ba buy génn toujours mu génn di wax lu baax ndax loolu la suñu boroom subhaanahu wa sant su suñu ay làmmiñ moo tax yàlla wax nañu ne yaa ayuha alladina aamanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida nee na yéen ñi gëm yàlla wax na ci daairatul iman ngeen bokk nangeen ragal yàlla indi woon nañu ngëneel yi nga xam ne yenn ci ngëneel yi nga xam ne moo nekk ci ragal yàlla yàlla ne ittaqullaa na ngeen ragal yàlla waaye waqulu na ngeen wax xawlan sadida wax ju jub na ngeen wax wax ju baax na ngeen wax wax ju sell na ngeen wax wax ju rafet bu ngeen ko defee day yuslix lakum amalakum bu ngeen nekkee ci entreprise bi di liggéey te tàmm wax ju jub yàlla nee na dinaa yewenal seen mbir ci société bi ngeen nekk bu ngeen nekkee ci kër gi nekk famille borom kër gi di wax wax ji jub soxna si di wax wax ji jub nee na dinaa yéwénal sëy boobu ba du am benn problème nee na bu ngeen nekkee ci lépp lu ngeen mën a nekk rek ci gàttal ngeen nekk ca loola di wax ca loola wax ju jub te rafet te baax nee na dinaa yéwénal lépp lu ngeen dugg ndax lan wax jub jub ak wax ju baax ji ngeen ciy def nee na du ma ci yewenal ki waaye wa yaafir lakum sunubakum danaa leen jéggal te mooy danaa leen sutural yow boroom kër gi boo dee wax wax ju jub doo tappale yow soxna si tam ngay wax wax ju jub neene na dinaa leen suturaal ba kenn du leen déggal waaw dinaa leen sutural ba seen sëy bi danaa ko ñoŋal dinaa leen suturaal jéggal leen seen ay bàkkaar yow mi nga xam ne tam yaa ngi ci mbir mu mu mën a doon ngay nekk di wax wax ju jub nee na danaa la suturaal jéggal la say bàkkaar wa yaafir lakum dunubakum yaleen bu ngeen gëmee yàlla nag ragal yàlla tey wax wax ju jub topp yàlla topp yenent bi yende taxe ngeen texe gu rëy تبارك الله موم لا نيي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسول فقد فات فوزا عظيما فتبارك الله يا نجي نوي سانت تام لو جيت صاح نوي جولي مونا نغين واخ واخ جو باخ مونا وقولوا للناس حسنا sa bu ngeen di waxanteeg nit ñi na ngeen waxanteeg ñoom wax ju rafet wa xuulu linnaasi xusnan waaw bu ngeen jàkkaarloog mu nit mukk di waxanteeg ñoom wax ju bon ndax wax ju bon indi woon nañ musiba ak conséquences yi ci nekk kon bu ngeen di wax ak nit ñi na ngeen wax ak ñoom wax ju baax wa xuulu linnaasi xusnan gis nga yàlla tam ba mu yónnee yonent يالا ibrah yonent يالا موسى ما عندك هارون haarun ñu dem ca noonu yàlla bu mag boobu nga xam ne mooy firawna nga xam ne li mu mas a wax amul kenn ku ko mas a wax muy ana rabbukumul aala maa alimtu lakum min ilahin gayri yooyu yëpp mu wax ko di noonu yàlla bu mag ba yàlla di yónni Muusa ak Haarun ca moom wax ne bu ngeen demee ci moom na ngeen wax wax ak moom wax ju dal na ngeen wax ak moom wax ju teey na ngeen wax ak moom wax ju rafet وقولا لهما qawlan لينا ndeysaan waaw waxuula lahum qawlan layina na ngeen wax ak moo ñoom wax ju rafet fa tabaarakallahu te mooy wax ju dal wax ju teey mu mel ni yàllaa ngi misaal wax ju dal wax ju teey wax ju rafet ak garab mu ne wax ju rafet mi ngi mel na garab bu am ay banqaas garab gu am ay car garab goo xam ne dafay am ay doom doom yu neex nee na kon boo waxee wax ju rafet yow se résultat wax ju rafet yooyu day mel na garab garab goo xam ne dafay am fondement bu dëgër ndax banqaas yi ak euh, euh, car yi wala euh, tabaarkalla reen yi laa bëgg a wax reen yi mi ngi jàpp ci suuf nga xam ne garab la goo xam ne garab gu dëgër ngelawak ak tabaarakallahu dara mënu ko daaneel te garab ga mi ngi amee ay car amee ay banqaas mi ngi amee ay doom yu neex nee na bu ngeen waxee wax ju baax wax ju dal wax ju rafet loolu lay jur ci yéen nee na wax ju bon nag mi ngi mel na garab gu amul benn banqaas garab gu amul benn reen nga xam ne jàppul fen lu ko laal rek mu daanu ngelaw sax lu mu tuuti tuuti bu ko mu daanu nee na wax ju bon noonu la mel ci yéen kon tabaarakallaahu mbokk yi wax lu mat a bàyyi xel la làmmiñ lu mata a bàyyi xel la lu mat a wattu la tabaarakallaahu ndax buñ ko wattee rek mu ñoŋal suñu àdduna ñoŋal suñu àllaaxira te ñu lu ba ci suñu làmmiñ yi ñu ciy zikar du ci tudd yàlla di ci jàng alquran tabaarakallaahu lépp lu yàlla santaane ci lu baax ñu koy tudd suñu làmmiñ lépp lu yàlla tere ci lu bon ñu bàyyi ko ci suñu làmmiñ lu mel ne fen lu mel ne jëw lu mel ne rambaaj lu mel ne xuloo lu mel ne teesante yooyu yëpp ndax dafa yàq suñu koor loolu la koor doon ñu jàngal ngir ñun ñëpp ñu wattu suñu làmmiñ tabaarakallaahu ñu jeexale ko rek benn ah, nettali bu mag ñi daan nettali ne dafa am benn ah, koo xam ne dañ koy tuddee ku dof ku wérul waa dëkk bi dañu xëy bés ne dañuy dem ca beneen dëkk ndax dañu am benn tudd benn ngénte ñu ne ñëpp defaru ne waaw tee ñoo yóbbaale dof bi mu ne man <laughs> bu ngeen ma yóbbaale de bu ma demee dinaa rey liir bi ñu kon de kenn du la yóbbaale fi lañ ne bàyyi ñu waaw kon tee ñu ko fee kon nañ ko fi bàyyi mu ne bàyyi <laughs> bu ngeen ma fi bàyyee bu ngeen dellusee ñëw fekk ma taal dëkk bi yëpp waaw ndeysaan huit heures lañu waroon dem ci tudduma toog nañ ba dix heures xamuñu lu ñuy def toog nañ ba onze heures xamuñu lu ñuy def ndax dof dof bi nee na bu ko yóbbaalee mu rey liir ba buñ ko fi bàyyee mu taal dëkk bi dof bi ne leen mais yéen <laughs> xanaa yéen amu leen xel te ngeen maa takk takk leen ma jël leen ay buum takk ma ci garab ki te ngeen dem seen yoon mu ne ñu ne moo ne wax na dëgg di <laughs> ndeysaan ñu jël ay buum takk dof bi ba mu dëgër fiñ ko takke woon nag teg ko ci côté ker gi waaw jant bi tourné ba dof bi nekk ci naaj bi muy xuus muy yëngatu rek ndeysaan ndeysaan di baj-baji rek ñu fekk ko fa waaw <laughs> sëñ Jóob yow oh, lii lan la mu ne xanaa téye làmmiñam ne xanaa kii rek waaw lépp daal làmmiñam a ko teg mu mel ne daal musiba bu dal nit rek làmmiñ waaye yiw wu am ci nit rek làmmiñ kon nag ñun ñëpp ñu fokk suñu làmmiñ te ci wax lu baax ñu ngi leen di jégalu di jégalu yàlla lu ci jub ak rëcc-rëcc yi nga xam ne mi ngi ñuy rëcc ci biir fa tabaarakallaa ñu ngi leen koy jégalu di ko jégalu yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.